السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جليد يني سيتان في سفينة تي في سن بوكو دار بام مختاسي لا موديل سيوات اك يين سين وقتانو تباسكي دي وقتان يو خلني سين تلفزيون سفينة تي في ñoo leen ko tànnal di leen ci gunge ci sunna yonenti boobu nga xam ni alayhi salaatu wassalaam sunna la boo xam ni sunna mu akkad la muy sunna bu nu feddali tey sunu waxtaan ñu ngi koy aj ci gàtt yi nga xam ni moom lañuy tabaskee tabaski yàllaa ngi dogal ci ñeenti xeeti gàtt rekk la mën a nekk bi ci jiitu mooy xar bu ñaareel bi mooy bëy bu ñetteel bi mooy gil mooy nag bu ñeenteel bi mooy gileem ñeenti xeet yi ci lañuy tabaski waaye benn bu nekk ci ñeent yooyu kuy ba moo gën mooy bu góor ba soo ko mënul am nga am bu tàpp ba tàpp mooy bi nga xam ni góor la woon waaye jox nañ ko loo xam ni lekk na ko ba léegi ñu koy tuddee tàpp walla loo xam ne def nañ ko ko ba léegi ab tàpp la boobu mooy bu ñaareel bi bu ñetteel bi mooy bu jigéen noonu ma ci xar kuy bi tàpp jigéen bi noonu la wàcce ci bëy noonu la wàcce ci nag noonu la wàcce ci géléem waaye benn bu nekk dafa am bu ca mat ak bu ca matul bu jiitu bi mooy xar mi dama lay wax ci xar mi nag loolu itam mooy bëy bi mooy nag wi mooy giléem gi bu dee xar bi nga bëgg tabaskee gis nga mag ñi bëgg gi nu bëgg yàlla looloo tax xar mi ñu daan tabaskee walla bëy wi dañ koy jënd yar ko ci seen biir kër booboo gën donte am na ñoo xam ne ci wàllu sentiment ak ci wàllu ñeewant yar xar walla bëy walla nag walla giléem ba mu miin la nga tiim ko reddi ka am na ñoo xam ne mënuñu ko seen xol moo ko mënul loolu daf tamit dafay am dañ koy nangul ki ko mënul waaye daal bi gën mooy bi nga yar ci sa kër mu nekk ak sa njaboot miin leen ngeen koy xont di ko toppatoo ba bisu tabaski ba bisu tabaskee nga tër ko jaamoo ko yàlla boobu nag mooy xar mi ñuy tabaskee walla bëy bi wala nag wi wala giléem gi melokaan yii ma lay bëgg a wax bu ci am ci moom matu ko moom itam mu yóbbaale rek beneen sunna muy tudd sa doom boo doon tudd sa doom xar moo xam ne dafa mel nii mel lay bëgg a wax matul tabaski waaye matul tudd ci gàttal daal xar mi mat tabaski walla muy mat tudd mooy xar mu amul ayib ayib mooy sikk bu dee xar mi dafa pat benn bët la beneen bët bi dafa yàqu matul tabaski booy jënd bu ko jënd bu dee xar mi dafa silmaxa ñaari bët yëpp benn ci gis booy jënd tabaski bu ko jënd matu ko bu doon xar mi dafa tëx maanaam xar mu tëx mooy xar moo xam ni boo ko doxee woon gannaaw fotos wala nga tàccu wala nga dóor dara du geesu danañ tekk xam dafa tëx du dégg boobu matul tabaski xar moo xam ni dafa luu mooy xar moo xam ni du mbee matul tabaski xar moo xam ni nopp ba boo ko séddale woon ñetti pàcc nga ni nopp bi na sama baaraam bii la gudde benn pàcc ñaar ñett ñaari pàcc ya dagg na dem mu des benn pàcc ba xar moom matul tabaski noonu tamit génnu xar mi su fekkoon ni boo ko séddalee ñetti pàcc ñaar ya dafa dagg ñu naan ko xar mu njàdde nga xam ni gen ba dafa dagg ca kaw xar moomu matul tabaski bu dee xar mi itam dafay soox soox bu leer nag waxuma la soox boo xam ni leerul nàññi waxuma la ko bu dee xar mi dafay soox mais soox bi pour nga xam ko il faut nga seet ko seetantal ko natt ko nattaat ko booba mat na tabaski soox boo xam ne soox bu leer nga xam ne bu seqee tànk teg rek nga xam ne ah xarmee de dafay soox dafa handicapé ci tànk bi su boobaa matul tabaski xar moo xam ne gimiñ dafa xeeñ ba taxawoon il faut nga taf sa bakkan ndax xeeñaayu gimiñu xar mi xar moom itam matul tabaski xar moo xam ne dafa làpp làpp suñ ko waxee mooy xar mu yooy xar moo xam dafa yooy nga xam ne tey biir bi dafa yooy ba taf biir baa ngay daw boo ko rendi woon daanaka yàpp wa sax doo ko mën a lekk xar moo matul tabaski kon ci ga xar mu di nàcc matul tabaski kon ci gàttal xar yi wax benn matu ci tabaski kon booy jënd xar yi ma la wax yëpp nga saytu ko ci xar mi si yi matee rek jëndal xar moom mën na tabaski tabaski nag sunna la bu am doole yow mi ko man bu bu dara dox sa digganteeg nga def ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na donte tabaski dafa ñëw Pape Makhtar si la am ñaari mbubb kese ñaari yére nga am waaye benn yére bi mën nga ko jox boroom xar ba tayle ko ko mu jox la xarum 40000 wala 50 wala 60 nga tabaske ba tabaski jall te du la tek ben fitna nga am 40.000, wala 50 joxat ko mu joxalu su mbubu demal nga tayle su mbubu wut am xar pour tabaski kon sunna la ay sunna la bo xamne sunna mu ak këdd kon nako ñepp bayyi xel bis bi so amé sa xar nak nanga dem julli ji ñaari ràkkay tabaski soo amul xarit nag na julli ji ndax julli gi sunna la tabaski bi sunna la boo julli jee ba ñëw te santeeg imaam bi la jiite woon rendi na xaram ba noppi nga ñëw rendi sa xar xar mi nag léppam tiyaaba la yonent bi nee na xoolal ba nga koy jëndi dem daral ga boobu la tiyaaba ji tàmbali ak ngëneel bi ndax soo jógee di jëndi xarum tabaski tànk boo yëkkati jëm daral ga dañ la koy faral bàkkaar boo demee di waxaale bii ñaata cent bi ñaata deux cent trois cent wàññil nee na noonu ngay waxaalee di wër xar mi ñu ngi koy bindal ku doon wax subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah wallahu akbar tiyaaba jooju lañ la koy bindal soo dee fay joxe xaalis bi dërëm bu nekk ñu bindal la ko tiyaaba soo jëndee xar takk buum jiitu ommat sa xar jëm kër ga walla nga teg ci sa oto walla ci sareet wala ci Jakarta yaa xam foo teg ma ba ngay wàññeeku ñu ngi lay yëkkatil ay daraja ba keroog ngay àgg si kër bisu tabaski nga tër sa xar di ko rendi boo ko tëree téye sa paaka ni bismillahi allahu akbar nee jël paaka bi teg paaka bi lu mu ñaw ñaw balaa bu daggee putu xar mi balaa deret ji di tuuru yàlla nee na maay njëkk aw deret ndax deret jooju man lañ ko jaamoo maa koy njëkk aw nee na boo rendee fees karaw bu nekk ñu bindal la ko tiyaaba ceeb bërit mi ñu bindal la ko tiyaaba mooy butit yi ak mbàq yooyu ngay tuur di ko sànni yooyu yëpp di ko raxas dañu koy bindal tiyaaba karaw bu nekk ñu bindal la ko tiyaaba wey yu ñu bindal la ko tiyaaba yax yu ñu bindal la ko tiyaaba béjjën yu ñu bindal la ko tiyaaba xattaa ba yàpp wi suux boo jël ci yàpp wi sex lekk dañ la koy bindal tiyaaba loolu da nga dégg mag ñi santoon siise daan wax ni ah tabaski mooy neex te dagan am ci sa yàlla am ci sa biir lool kon tabaskee ngoog ne ko ñëpp farataal ne ko fonk bu jamono xat-xat ba nga ni jamono bi dafa xat tabaski ren nangam suñ sunna yonent bi la damay wax ni doomu aadama li ko yàlla sant xat-xatu jamono waru ca feeñ lépp lu la sa borom sant na nga fexe ba def ko pour wane ni jamono yow jaam na man jaam la buurama sant comme buurama sant lu jamono indi rek jaam la bu indi boo xam ne dafa am lu mu indi rek waaye lu la yàlla sant fexeel ba def loolu kon nit ñëpp fexe ba am xari tabaski tabaski ku ko amul tamit na nga xam ne am nga tiyaaba yi tabaski ndax yonent bi yóbbaale woon na la ca xaram ma waaye maa ngi ñaan yàlla julli ñi bëgg tabaski ñëpp yàlla leen yàlla jox tabaski jox leen lu ñu sol ak lu ñu solal seeni doom ak seeni soxna ak lu ñu terale seeni wayjur ak seeni bokk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seen mbokku daara Pape Makhtar Sylla moo leen doon indil seen yóbbalu tabaski ci seen Safina TV maa ngi leen di dig daje incha allahu rabbi fan yii du ñëw du yàgg ci beneen waxtaan ci wàllu tabaski yàlla ñu ko yàlla may bi jaay sidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu